Heavyweights.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 mën na lu ne waa ji mu ngi wuyoo ci turu Begay am ñaar fukki at ak ñeent di ab sofooru taxi alo Dakar moom daal li mu mul woon di gérer mooy coroom si dem sëy ak beneen góor <laughs> ma ne neexul ci xol nag ndaw si mu ngi wuyoo ci turu enn Jóob am ñaar fukki at ak juróom benn <laughs> waaye xale la di moom daal moo war sa sofooru taxi bi dem sëyali beneen góor <laughs> complot chauffeuru taxi bi nag bi mu yegee ni ndaw si daf koo war dem sëy ak beneen góor nee ñu ci la utijee ab sëriñ daal di sëriñtu ndaw si ndan ni ma ci noonu la defee ay pexeem ba daal di enlever xale bi yóbbu ko ci village bu ñu naan Njooba nekk ci wetu Tiwaawan foofu la ko séquestré violé ko guddib lëmb laa wax mu waay Anna Diop nag di ndaw si ñu violé bi mu xëyee la dem ci ay kan kannaaw ay waxtu yu bari yuñ ko doon wër naka noonu bi ko mbokk yi gisee rek la ñu ko jël yóbbu ci ab gynécologue am gën nag day ci la ko gynécologue bi xool gis ni ndaw si caxat-caxatee nañ ko ba mu yàqu yaxeet li moom doy na waar di ba yoon am ci mbir mi yoon safaru taxi bi fi mu ne defeere nañ ko parquet pour viol enlèvement njàngat bi nag mooy yëf yi ñaari ndaw a ko séq béggay di safooru taxi bi am ñaar fukki at ak ak enn jóg di xale bi ñu am fukki at ak juróom benn chauffeuru taxi bi nag daf ko enlevé wala enlevé u ko yàlla rek a xam wala ñoom ñaar a teg seen dil dem def sen tojaange yàlla rek a xam li ci jaaxal nit ñi nag mooy góor am sañ-sañu séquestré jigéen yóbbu ko ñoom ñaar ñu ne ci ba bët seet ndaw si xëy dellu ci ay mbokkam ah waay doy na waar waay xale sañ nañ lu ne moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa ndaw si nag moom ne taa xaritu benn bakkanam ak jëkkëram ci kaw lalam Sow mu ngi wuyoo ci turu Maymuna ne bu ma amee fukki at ak juróom ñaar la marié woon ak ay Maymunaay wax de ne bu mu ciy toll macha allah góor yu bare ko doon njëkkante Moussa tamit di borom këram bu mu ciy toll ab saa su man dëgg la woon jigéen ñu bari di ko njëkkante ne ñoom ñaar ñu bëggante woon ba kenn gëmeewul sa morom ay waay mbëggeel mbëggeel waay kóolute gi doxoon seen diggante nag tubaab di ko wax confiance foo ko natt ëpp na ko may mun a ne Moussa mbégteem la woon moom it mu doon mbégte Moussa waaye saytaane lu neex rek lay bañ ndekete woo mbëggeel day gumbaloo ma ne ko yemu ci mbëggeel kay day gumbaloo tëxloo ndax may mun a ne ki mu yaakaaroon ne du ko mës a wor di borom këram moo ko wor ak beneen jigéen te moo ne ne Moussa mi di borom këram daf ko mës a gëmloo ne du ko mës wor boo demee mbaa du erreur ndaw si ne bis la jóge marché bi mu mu delsee ba ci biir këram ci la fekk ci kaw lalam jëkkëram ak xaritu benn bakkanam hopplo kaaf xob na de ndaw si ne bim ci yemee dafa tiit ba mënul téye boppam yaakaar ne da doon gént ndax li mu teg bëtam musu ko njortu musu ko xalaat ci borom këram ma ne ko na góor ak jigéen bu kenn araamul sa morom ci néeg ñoom ñaar cundum wóorul waay may mun a ji jabaru waa ji ci la suur jëkkër ji kal dema dem sax ba mujj ko ñaan baat waay déet déet déet waay te mbir mi nag li ci gën a doy waar mooy Maymuna bi jëkkër gi toppee ci ginnaawam di daw ci moom ngir mu sëy def ko defa def jaar fu ne ndaw si lànk jëkkëram ji di Moussa xaritu benn bakkanam bi mu ko bettaloon la mujjee takk def ko soxna eskay waay Moussa looy wax waa koñ ba waay ma ko nag yu mel nii moom bari nay xew ci réew mi ay xarit yu jigéen yoo xam ni dañuy ñooxu seeni moroomi xarit di piis seeni borom kër ji leen envoyé message a ko xoy ba mu ji way a way waay waay waay waay jëkkëru jàmbur yi waay ak ay góor ñoo xam ni mane dañuy nopp ay jabaru jàmbur lala la wax topp ko di may xaalis ak ay message ko jox rendez-vous ay waay bàyyi leen jabaru jàmbur yi laa wax réew mi yu ni mel koy bëgg a moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graaw korona laa wax ca géejawaay ca wàqi naan nim sa doy na war ab raxaskatooto moo fa dóor balu pisale benn menuisier ba mu jaare fa ñàkk bakkanam la ilaha illallah mbir mi mu ngi xawee ci cité Sonès ab waay daal moo fa doon raxas lu ab otoom ndekete ci biir oto bi daf cee fàtte ab pistolet bu amooni bal bi ko raxaskot oto bi gisee jël arme bi doon ci foog benn menuisier buy yoo ci turu Pape Diakha bi ci nonu la laveur bi tiiree rek bal bi dal di dal menuisier bi ci mu jaare fa ñàkk bakkanam ay waay ndogal bi yëf yi xewee na ci la famille victime bi dal di fëx bëgg a appliquer li ñuy wax loi di talion bëggoon a song raxaskatu oto bi tiire bal ci noonu la police interveni dal di tasaare ful bi fi mu ne raxaskatu oto bi ñu njort ne moo rey ak borom palaas bi ak borom oto bi fa fàtte arme bi ñoom ñëpp yoon teg na leen loxo ay waay ay waay li ci gën la doyati war nag mooy borom arme bi amul woon permis de port d'arme te it nee nañu arme boobu ci bitim réew lañu ko jëndee mu ñëw senegal <laughs> waay waay fii doy na war ab arme bu ñu jëndee bitim réew mu jaar bitim réew ba dugg ci réew mi doy na war waaye tamit ndaw ñi bay leen di fooye leen xamul waaye nag ndogalu yàlla bu ñëwee kenn mënu ci dara dara mu doon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz